Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV Sénégal 4 TV dinaa la waxtaay nag lu metti képp koo dégg mu ne la damay wér turu jinne wala sëriñ sàngam ma jox turu jinne xamul dara sëriñ bi xamul dara jinne kenn du wér turam bis bu ñëwee indi lay problème te jinne ñaari ngir moo am jullit ak yéefar jinne moom amul tarixa amul leneen jullit moo am ak yéefar ndax jinne yi euh, rasamaa mooy seen maam ni maam aadama doonee suñu maam ñun rasamaa noonu la doonee maami jinne ndax bi yàlla di laytaay suuf si fi la ko fekk waaw waaye fi ne nii Sam Xarous mooy président jinne yi maanaam mooy xalif général bi daal waaye nag ku ci nekk am nga foo moom ak foo féete ak fi suñ boroom jox ndax xam nga dafa am neuf buntu yi yàlla di nangoo ñaan waaw benn baa ngi wakaam waaw ñaari Tuuba benn bi Thiès benn bi Bambey benn bi Ndar waaw benn bi Kaffrine waaw benn bi ne Saalum ak yooyu noonu lañ ko séparé te fu si nekk suñ boroom teg na fa kuy jinne bu fa ne bu koy garde ndax boo xoolee bu dee wakaam dumbur yaataa koy garde mooy làmp ngor bii fi ko tiim mooy bunt bi waaw ndax moo tax am na yoo xam ne boo ko bëggee ci dëkk wala nga bëgg faa fal kenn foofu nga mën a jaar ci ñoom ñooñu garde dëkk bi ñoom nga mën a jaar ndax lu muy yaatal moom moo garanti Dakar yëpp waaw bëri na nag yeneen rawaan yu fi ne ndax euh, kii yee ngi fi euh, lëg daawur lëg daawur xam nga moo jur njare njare mu yoof waaw njare njare moo jur biige bang ak mboose bu kawlax ak maam nungulaan mhm. njare leen jur dee bu dee Fatick euh, Mendis moo fa ne Mendis Sano waaw moom jëkkëram mu ngi tudd Arwaaka jinne yi daal euh, loo bëgg ci ñoom mën nga koo am waaye balaa ngay am dara ci ñoom il faut nga jaxasoog ñoom jaxasoog ñoom boo jaxasoog ñoom ba suñ borom dimbali la lépp loo looy duggati ñu fekk la ci te ñoom ñoo gën a gaaw ci lépp waaw jinne ak rawxaan yi daal ñoo gën a gaaw ci lépp ndax rawxaan yi moom ñu ngi tegu ci ci talsam yi su mm-hmm. ni kanda yaasin mooy mooy mooy secret ayatul kursi bu dee na bëri na aaya bu ci ne am na bu ci taxaw dam mu ngi ci barxasun mu ngi ci rawaan bi maye alal mooy yeneen ak yeneen ak yeneen ñi may ñëwee ma leen a tudd sax ndax xam nga sénégalais maanaam dëgër na fit dëgër fit goo xam ne buy dégg ngay tudd yenn yi te mu dem toog di ko liggéey waaw ndax euh, ku si mel ni sam xaruus ci ci fatiha la ne say jakk ji suñ fatiha ndax sam xaruus bi ko yonent bi di tuubal arafi fatiha la ko tuubalee daa jël siin gi nekk ci bismi jël raak siraata euh, miimuk alhamdu waaw wala daalin ak yooyu yëpp mu jël ko dajale ko muy sama mu ngi dëkkoon mu ngi dëkkoon ci xuntuma yonente bi duggoon ak Babacar fa la dëkk waaw bu fi yonente bi jógee mu jox sëñ jox boppam sëñ Tuubaa jox ko sëñ Mor Janjar ba fi ne nii mu ngi Touba Sam Xaroos moom mooy ba nii mu ngi Touba Touba am na fukki kuy jinne jamono waaw nga xam nga umpale woo ne sëñ Touba jële na juróom-ñaari kuy jinne ci géej gi mhm. mooy ñoom Naba Yoro Kallira ku Nuur tamti ak ñooñ mhm. waaw bi mu ñëwee dafa fekk ñeent mu ne ñeent ñi ku bëgg a tuub mhm. toogal nga tuub ñu jaamu yàlla loolu bi muy sanc Touba la ndax kuy jinne yooyu ñoo masa moom Touba nit nit amuloon fitu ne maa moom ndax kuy jinne yooyu ku fa mos a ñëw ñu yàq la sëñ Touba ñëw fa toog ci fi jumaay sooroot bu mag bi ne toog woo leen ñoom ñeent ne leen ku bëgg a toog ñu jaamu yàlla nga toog ñu jaamu yàlla ku ko mënul nga abal ma kenn ki ñett ñi nangu kenn ki bañ ki bañ sëñ bi daax mu dem ba àllum ba daxun ginnaaw kaw la mu sanc foofu ñett ñi tuub meeke la woon jëndeelu ak pakaaw mu tuddee manumbe meeke mu tuddee ko sëñ manumbe xabbaan Moussa jëndeelu mu tuddee ko Cheikh Moussa ak Ibrahima pakaaw mu tuddee ko maam Thierno ñoom ñett ñooñu bi mu demee ci géej gi ba ñëw àndaale juróom-ñaari kii jinne muy fukk mu wërale leen Touba ñuy garder Touba moo tax kenn mënu fa yàq dara ku ko bëgg a yàq dara yaa yàqu te sooroor bu mag bi bi may njëkk a gis sam xarus fa laa ko gisee taxaw tiim sooroor bu mag bi nga jinne nit ñee fi nekk di wax nii rek waaye jinne moom ay caaxaan gisu ko jinne dangay dangay nekk ci suñ borom ba suñ borom may la li nga bëgg ñoom ñu wuy si la waaye kenn du leen woo di jaar ci seen tur di leen woo hmm. da ngay jaamu yàlla nekk ci turu yàlla bañ ba ñu wuy si la waaw wala nga am ndimbalu sëñ Saliou rek waaw man moom ndimbalu sëñ Saliou la am. ndax bi ma ko mujjee gis yàggul. <laughs> ah ñun ñëpp yàlla ñu am dimbalu Serigne Saliou loolu la ñuy daal di ñaan di la ko ñaanal tamit yow mi nga xamante ni yaa toogoon di bàyyi hmm. émission ëttu xam-xam lii la woon ñu fàttaliwaat leen adresse bi rek euh, kii di Serigne Abdoulaye Seck mi ngi nekk ba diwaanu euh, Touba numéro yi affiché wu ci bas écran bi balaa ngay déplacé wu di dem jokkool ak moom su ko defee ngeen daal di déggante lépp loo xamante ni nii mën na ko ci sa jàngoro mu def li mënul bu bàyyi suñu borom moom mi gën a dara di leen jox mbokk mbokk yi di daje ay bisi di ñëw ci beneen toogaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sénégal TV yow yaa ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV mooy le 77 507 TV forever. salaamaaleykum yaram ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziar di nuyu ñëpp rek eh, ma am lu ma leen baaxee rek ci xollitu soble xollitu soble nag bés ni ki tey bu leen ko sànneti ndax dafay faj te yenn saa ñu tuur ko rek ba mu feesal dell sunu poubelle yi ah boobu nag xam naa dañoo xamul ne rek trésor la ñuy tuur noonu waaw lu am solo la ñuy tuur xollitu soble muy soble bu weex baag bu jaune baag bu xonk baa ci yem boo ci amee rek lenn looy mën na koo mën nga mën nga mën na koo faj lu mel ni jàngoroy xol yi bu dee yaa ngi koy jël dala ci aar jàngoroy xol moom boo moytul yow da nga koy dégg rek jàngoro yi jàpp xolu doomu aadama naka nga koy jëlee da nga ci am nga bu loxo rek nga raxas ba mu set def sa marmit def ci doy ni ñaari pot ndox yu yem rek baxal ko 10 minutes bu seddee nga segg kooku mën nga ci jël kaas ñaar ba ñetti yoon ci bés soo ko saxoo jàngoro xol yow danga nga koy dégg rek ak jàngoro yi jàpp yax yi méttitu yax ak ay euh, rhumatisme ak yooyu tamit danga nga koy dégg ba yaa ngi koy jëfandikoo waaw ak crampe ñoo ñu di jàmbat crampe crampe musculaire nga xam ne musculaire lay jàpp yax yi waaw jékki-jékki rek yax yi mel nii am ami métit bu tar bu la bett la ñuy wax crampe bu dee yaa ngi jëfandikoo tamit ah suñu borom mën a defal taw feex ba loolu dañ ci wàllu karamp nag am na soxna su ma ko digaloon xam naa ba ma ko waxee sax dafa mel ni da ko xaw na xeeb waaye nee na guddi googu nu ma sonnee ba ma ko defee daanaka dix minutes rek après la seddu guy waaw ci laa tëdd nelaw lu ci am solo la waaw euh, xoolitu soble dafay aar nit ci jàngoroy cancer bu dee yaa ngi jël. xollit bi laa wax waaw bépp doomu jàngoro ju nekk sa biir mën na koo rey te dafay nettoyer sa sa biir nag day taxa nelaw ki amee jafe-jafe ñàkk nelaw insomnie dañ ko koy digal ci wàllu soj tamit digle nañ ko ci ak soj boobu di ànd ak bakkan buy xasan bu boobaa nag danga koy baxal ba mu bax nga suuroo ko suuroo ko mooy nga wut sër nga muuru sa xar si dugg la lu baax la ci sëqat ak soj waaw soj mbax naa ko surtout sëqat waaw ndax soo gisee mu baax sëqat soble dafa am suufur suufur boobu lu aay la ci sëqat ak bronchite ak bépp jàngoro buy jàpp yoon bi nga xam ne fa la li ñuy ngelaw lu baax la ñuy nooy di jaar kon nag lañ ca digle la lu baax la ci góom yu sew yooyu di génne ci gémmiñ wala ci tuñ yi waaw ak jafe-jafe gémmiñ yu bari ba ci mbuuraan moom it bu boobaa da nga koy baxal ba mu bax bu nuggee rek nga koy galax di ginnaaw boo ko seggee ngay galax di ndox mi lu baax la ci varis varis mooy tànk yooyu di sidit néew yi ba nga koy seen waaw muy feeñ waaw ndax boo koy jëfandikoo day tax sa deret surculer loolu jafe-jafe boobu dalay bàyyi boo ko defee sa traitement lu baax la ci wàccee tension dañ koy digal borom tension bu yéeg moom xollitu soble yooyu moom tamit comme ni ma ko la waxee ni ma ko waxee rek noonu lañ koy jëfandikoo waaye lu baax la ci ay taab ak euh, ki amee baaraam buy mét béy wala loxo bu boobaa dangay jël xollitu soble yi nga tàngal kook diwu olive ba mu tàng nga def ko pansement nga taf ko ca baaraam ba la ci loxo ba wala ci taab ba nga def ko pansement moom tamit daf koy seral kon nag xollitu soble mi ngi noonu yooyu ay njëriñam la xëy na ñun dañ koy sànni rek di ko sànni waaye lu mën a jàppale doomu aadama la ci wàllu wér-gu-yaramam salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.